tey jii nag. Mhm. Euh, waa ji nga xam ni moom la ñu invité woon. ñu koy wax Mamor Mbaye Mamor Mbaye mooy ba mu wa non Mamor Mbaye xamut tele Ah. Ah. moo tax man damay wax ñoom mbàkk yu ah, fay. Mamoun Mbaye nekk euh, Touba TV. Touba TV di liggéey Touba TV la nekk da may déglu rek yoonu géej mbàkk yu fay yoonu géej gi waaw. mbàkk yu fay boo gisee télé bi ba tey décollé wul. dafa teg des personnes yoo xam ne xamuñu télé joxuñu gëdd télé. non mais bu ñu dee personnel Mamor Mbaye rek. Mamor Mbaye dafa mel ni ci kilifa yi la. Eh. yaa ngi dégg Mamor Mbaye. Hmm. dafa wax wax yoo xamante ni. fii laa ko wax. Hmm. mu ne ba mu demee foofa ca Gabon. dañu seen oto da doon taw da mu ne da dafa amoon problème radiateur bi am problème ndox nee na mu yëkkati biteelu vingt litres café Touba sotti ko ci te booba mi ngi taw taw bu métti danga koo gëmul waaw taw bu métti bi moo ma ci jaaxal nu muy tawee moom nee na ndox lañ manqué nee na fa muy fa fa mu doon taw ndox ma lu ñëw dem déglu ma rek da koo gëmul déglu ma rek a ah, gëmoo ko lu ma rek <laughs> maam Mor Mbaye xam nga loolu fa la tappale dooree waaw léegi nag mu mu ne lool da ko naqar dafa ñëw ngir leer si ko waaw mm-hmm. yaa ngi dégg ma ne ko booy ñëw mu ne ma yor naa vidéo yi lool loo xoon asa mesere ma ko léegi na indi vidéo yi ñu wane ba ñuy sotti café Touba gi man mi gis naa ko yaa yi man gis naa ko gis nga ko bi ñuy jël euh, kii bi di ko sat ci radiateur bi. waaw waaw wane nañ ko ci kii bi ci internet bi. waaw ndox mais mais mais nee na da doon taw. taw bu métti. da doon taw waaw léegi loolu léegi léegi loolu. taw bu métti <laughs> moo ma jaaxal taw bu métti. mi ngi taw taw bu métti looy doon sotti kafe Touba. waaw mais yow léegi. léegi nag tappale bi mu defaatoon bi gën a garaaw nga xam ne moo taxoon moo waxoon pour mu ñëw pour ngembal ko fii daal di ko fi. Euh, leeralee euh, kii léegi mu ne mu wax ñi ne amutoon fu ñu taataan ndox mi bu tawee day kii. waaw amuñu fu ñu taataan. waaw waaw. man bàyyi dëgër fit dëgër na fit moom. léegi nag ginnaaw yàlla dogal mi ngi naan ma ay ñu jàpp jàppuñu ko beneen yoon ban ko xamut télé moom. wax ko ah. fa yàlla soxla wut ñu koy. non non ngant day am ne ngant dafa am ngant. est-ce que amul ngant. dem ba dernier mi naan dañ maa yónni Eh, suba place kaddu mag ñi. waaw mais da ngant kaddu mag ñi Mamour Mbaye yor kaddu gone lu ñu koy waxee nag nga kaddu mag ñi. waxtaanee mag magum réew mi ah, ah, ko bàyyi magum réew mi la histoire am yëpp dañ koy critiquer. yoonu eh, géej eh, kooku da kooku dañuy ba mu fi waxee yoonu géej gi ba duggoon fenn. bañ na ko demeewul noonu non bàyyil Mamour Mbaye Mamour Mbaye histoire yi muy ah. nettali dafa am solo. dafa am solo alaaji bul fi wax léegi nag ñàkk a ñëw tayam nag alaaj bu mu tax nga attaqué ko di dal ci kawam eh, dafa waroon a ñëw nag jàppal ko beneen bés bu dafa waroon a ñëw sunu sama mag jooju nga xam ne nag mbay waroon ah. euh, maa ngi wax mbàkk yu fay ah, ah, bu bëggee teleem bi décolle saa yërëm ko na élimine ay Mamor mbay ak ñu mel ni Mamor Mbaye ci télé ba parce que Mamor mbay xam-xamu tele parce que télé c'est sérieux yaa ngi loo xam ne dañ ko programmé depuis démb yow néew dañ ko yónni vingt 24 heures avant wax ak yow émission ne la émission bi tel kii la nga ne ok nga bàyyi ba dernier moment li gën a garaaw moo yëkkatiwul téléphone sax woote daal di bind daal di ne bon dama am. Euh, jafe-jafe contre temps contre temps point. noonu la ko waxee ne dama am contre temps. baaxul ma woo ko muy soog a wax naan non dama am contre temps bind naa la ko ci kii. xam nga loolu c'est saa ku leen koy donc il faut respecter que télévision dafa cher boo amee ñu woo ci. da nga war a respecte timing boobu dafa am lu ko téye rek yeewin nag. dara téew ko nee nañ ko yónni dafa am lu ko téye. Eh, mag mu doy ne ma yónni. ah mag duñ ko yónni. mag dañ ko yónni da nga xam ku ko yónni. ah dañ ko yónni nag sax xam ku ko yónni sax. ah dafa dem rek sama mag jooju nag mbaay. waaw mais jàppalaat ko bés rek mu ñëw loolu amul problème. bu lëndee na ñëw. waaw jàppal ko bu lëndee na ñëw leeral. Mamour Mbaye. déedéet saa saa Mamour Mbaye émission mën nga ko kale ba dernière minute. mu ñëwaat dafa an koy ñëwaat ñu ne ko jottalil ma kaasu café bi diw mu bàyyi ko. <laughs> te émission bi sax café Touba la tudd est-ce que am na émission bi café Touba la tudd. émission ba muy def. Mamboor. caaxaan Touba ay ay déedéet nag. non sérieux non émission bi muy def euh, Touba TV. café Touba la tudd waaw café Touba la ko tudd. maanaam dañuy naan ci café gi ba ba tàng jër waxtaanee. Touba ndeysaan wallaay Azim. Euh, Mamboor Mbaye Daane jërëjëf Mbengue euh, Mbaye Mbaye Daane bu altine incha allah na nga teel a ñëw. di nga ko invité kay wala ñu jël ko ci Nepad Musica <laughs>